parce que xam ngeen ne ñu ngi ci périmètre urbain bi léegi ñu ngi ci wàllu seen mooy gérer ndox mi ba su tey bi la ñu war a commencé ak euh, point yoo xamante ne nii jëm ci virement de crédit comme ni ma leen ko waxee sànq rek euh, kon loolu am na solo mais li ci ëpp solo ba ëpp ci solo mooy wàllu ndox mi police bi ndax dëkk bu toll ni nga xoo insécurité bi nekk fi ñu gis ne alors vol yi bëri na vol de bétail délinquance bi drogue bi tout ça bari mu doon un carrefour carrefour boo xamante ne nii ñëpp ràññee nañ ko gan gu ñëw fi ngay rawee gan gu ñëw fi ngay làqu muy dëkk boo xam ne di nga recevoir plus de trois cent famille non trois familles par par an donc là c'est quelque chose looloo tax tey police bi ñëw na à son pour la sécurité de notre commune bi nga xamante ne nii ñëpp dañ koy ñu ngi recherche nga xoof mu ne pour dëkk fii autoroute bi jaar fii ak mu am infrastructure xam nga loolu boo xoolee autoroute bi fii la génnee donc Salé booy dem Salé fi ngay jaar. boo dem somon fi ngay jaar booy dem nga pour fi ngay jaar kon daal boo xasee ci nga boo egg ci ngaxoo pour yow mën nga rëcc parce que sa ouverture fi nga war a mën def dafa bari parce que bu doon ngàppoon nga nekk tey boo mënoo dem Dakar jaaroo ngaxoo wala boo jógee ko neexee jaar zone Dior bu ko neexee jaar est bu ko neexee jaar ouest bu ko neexee jaar est donc loolu police am fi dafa am solo loolu tey mooy conseil bi euh, di remercier aussi le président de la République son excellence Macky Sall bi nga xam ne octroyé nañ nga 3 milliards 500 millions pour l'eau pour ndox ba yalla def na au début dañ doon wax né ay naxé la ba mu yàgg ñu né du yegg ba mu yàgg ñu né ndox du am ba mu yàgg ñu ne ndox ma neexul mais tay jii loolu yëpp ñu doon wax réalité bi ñëw na tay ñëpp xam na ne ndox mu mucc ab lu ndox mu nu traité té ndox mu doy lay doon ci gëna yomb aussi la fi nekkoon bu jëk té danañ ko traité bu mu am solo bu police bi ñëw tam c'est la même chose daal sécurité bi dana gën a yokk gën a dëgër incha rabbi té loolu pare na sur Ibou Sakho bi nga xamné ko ci délibéré na ko tey loolu aussi amna yakar né euh képp ku tek nga ko kontaan nga ci ndax site la bo xamné ne mosul am délibération mosul am kayit té fas yéene ko wutal kayit inshallah ci turu nak suñu baye El Hadj Sakho ci lay né fo El Hadj Ibrahima Sakho ci lay né ndax kër gi ndax tool bi famille bee ko moom. waaw virement de crédit moy li nga xamné euh da ngay jëlee ci ben rubrique yobu ci ben rubrique par exemple rubrique bi bu ñu ko utilisé wul ñu xam rubrique bi war nañu ko utiliser té wote woon ko ci budget bi.

le président wax ci mënu jàppale leen ñu des juróom-ñaar pour le moment te et puis dana continuer ñu waxtaan pour que ñu mën a jël ñëpp incha allah trois yooyu nag c' est des prestataires moo tax jëluñu leen mais ñu ngi waxtaan pour ñu leen mën a dugale ci si si seen